dund gu cheer gi doon lu am ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ménagères yi ñoom ñoo ko gën a yëkk. mu metti lool ci man te xam naa ne mu mettee ci man noonu la metti ci yeneen jaboot yi instant bi jigéen ñi stress lañuy ñuy dund Sénégal tàmmuñu woon bii dund gu metti ndaxte jigéen ñi sonn nañu dangay xool jën kenn mënu faa laal kilo yëpp 3500 Euh, légume bi kenn waxaalewu ko te légume bi fii lañ koy bayee légume bi ñuy bayee fii war na cher cher goo xam ne nit ñi duñ ci am accès dafay metti jigéen ñi sonn nañu ba fu son coono yem. biñ sukkandikoo ci jaaykat bi li mu xamle moom moo di. loo dugal doo ko am ndaxte mbir yi ñëpp a cher muy sàkku ci nguur gi. mu daal di ci wut ay pexe ci nu mu gën a gaawee. non si nawet yi mu toll nii loo loo dugal doo ko gis loo dugal day dem doo ko gis yokk yëpp ñëpp la la ko ñëpp la laal ñi ko muy ñi koy wàññi yàlla nañ koy wàññi te ñu fekkee ko. bu doon suñu lépp a yomb mais ñun mënuñu si dara ñaan mënuñu si dara wax dëgg yàlla ah buñ ko wàññi woon ñu jol buñ ko wàññi woon ñu jël ñu ngi ñaan nag ñu wàññi ko. sagam yàlla ñuy may ñu koy luñ koy jëndee dañ koy eh, santé suñu borom rek. ndaw sii di dikkaat di xamle ni. cherté dund bi ñëpp la laal jamono ji jafe na nga mën a dundal sa njaboot. ci ni mu waree te li ni mel moo tax gone yi daal di sóobu ci géej gi. liñ koy ñaan mooy na fexe ba dund gi yomb ci jigéen ñi jigéen ñi mën a gis seen bopp ku togg añ dootoo togg reer ba ci man nii su ma toggee añ du ma togg reer. loolu gëjoon na fi de te commencé waat na fi loolu nag daf fee war a jeex nga yor yaay ju mel ni man nga nekk xale bu góor liggéeyoo foo jaar di nga mbëkk gaal gi da ngay dem parce que daa ngi gis sa yaay bu wàccee da ngay souffrir nga gis loolu nga wër a wër liggéey ba sonn amoo amoo doo doo doo xool situation bi nan nga koy dundee mooy naa dem géej gi pour wàccee ci sama yaay coono. ci ay jamono nguuru Sénégal daal di fixé woon ay prix waaye ñi ñu dénk suñu micro li ñu xamle ni yooyu les prix kenn respecté wu ko te dund gi tey la gën a cher.